wóor Feugeuleu bu Ngor Wakaam ak Yoff mais dafa mel ni moo xaw a doole tuuti nag ah ah nga gis waaw loolu mel am na Père Max Mbargane ngi toog di seetaan ay joxal Diop rek la a nekk. bu ñu xeexee day yomb. mais mais doo jëli gis ku mën a jëli rek ku mën a ku mën a bett sa morom. waaw boo mënee woor rek a ci biir warante. foog la ak jeex jàmm. Père Max Mbargane a ngi toog. Père Max Mbargane borom combat royal bi. la grand menace la menace de Siteu. la ilaha illallah Siteu. combat fii dana weex dana met dana tàng jër waaye Père Max Mbargane dal ku doy waar la waa Ibrahima Mbaye Max Max eh, doyul waar yi me na de dafa nekk ci waar rek ah. di bay waaram Père daal xam naa ne borom lamsaar ñuy nuyu waa lamsaar ak jàmmagan waaw waaw lamsaar jàmmagan sikam mbaaw ba mbaaw petit mbaaw grand mbaaw lépp ci mbaaw Médina Fass mbaaw sax am na ci mbaaw léppay mbaaw la moo tax waykat ba ne sekki sekki néegi yoof waaw ñang ñaa sekk yaa nga mbaaw wala sekkeen yaa nekk mbaaw sekk sekk néegi mbaaw la wax na ko waaw sekk sekk néegi mbaaw waaw néegi mbaaw mengi mengi néegi yoof lépp mbaaw rek lépp mbaaw rek lébu gi la waaye Père Max Mbargane jolof jolof bu ñëw dëkk ci lébu la nag bàyyi leen ci xel moom jolof jolof la aka am fayda permax Max li am solo moy ci combat ta ak modulo moy li jara xol moy tracé ñaari mbeur yi modulo bi muy door dañ neewon woon ta nek roi mu xex bu dig roi Siteu bi muy door dañ neewon du du ta bok ci lamb ji ci yag mu mu xex buy beure combat royal loolu rek dèjà défi la loolu liggéey la loolu joma koy maye fula koy maye xam la ngay def bëgg la ngay def joxe cër da koy maye waye dal bu bëggee dégg dëgg ñom ñaar relief nañ defi bu toy war ki dégg na roi des arènes ki ngi bëre ki dégg roi des arènes te dañ ñoon mën ta nekk ñu fexé ba mu nekk kon Siteu yaag Modou Lo sant leen seen encadrement sant leen ñi leen tagat waye day jom mom ñàkku ngeen ko bu dee dëgg ngeen bëgg a dégg waaw loolu am waye combat ba nak mom mboko yaak doomi bàjjen yaag yooyu yëpp dañ koy tege ne dañuy doorante de dañuy xeex dañuy bëre waaye la ma jaaxal Ibra mbay Zallo nee na ma Modou Lo buy bëre ak yow day bëgg nga sëgg tas day bëgg nga sëgg tas it day taxaw nee na lee jaaxal kon moo tax mu ne moom Modou Lo am na combat loolu la Zallo wax. Zallo expert la lu mu wax ci làmb loolu am. ah nee na day taxaw de tam njool la. waaw ndax Modou. waaw dinay jonkoo jóg dem ngeen di waaw wala si ah. xale yaa nga ca de xale yaa nga ñoom ñaar waaw ndax si tey waaw danañ dire ku jëm ci kër Modou pour koo jàpp loolooy coow loolu mooy coow lu tey waaw sa loo de loolu la wax la grand technicien ma koy nuyu nee na ma daal Papa Sow bi si da taxawee ci kanam daa taxaw écran ko waaye Modou Lo daa gàtt loo booy ñaa par xeex ak moom andi ko ci li mu bëgg ndax dina ko def Siteu yàlla min bu Modou gàttee nooy def Modou bu bu Siteu taxawee temm nooy def loolu dina ko laaj Père Max Mbargane xëy na dama tekkil woowu woowu cax. xale yaa ngi dóorante de. waaw ñu ngi dóorante. combat bi nag li ci amateur yi doon gis lépp gis naa ko ci tey. waaw xeex nañu bëre waaw xeex nañu bëre nañu. waaw mais dama ne la Siteu. waaw Modou mën ko woo mu gàtt. waaw waaye bu Siteu gàttee. waaw est-ce que Siteu dina bu gàttee. waaw loxo yaay yegg mais cër yi du eh. loolu mën a jàngat la. wax nga dëgg de. mën naa jonkan. déggatil loolu waaye heure bu jonkanee. waaw ay loxo may ñëw. waaye Modou de daa doy war. mu daal mi moom dama ne kenn xamul ni su koy def rek. Modou daal lëmbe na jamono. waaw lëmbe na jamono moom. lëmbe na it banlieue bi nag. xam nga nag jomam moo ko fii yëpp. waaw tollul ni gars waaw waaye lu gars liggéey liggéey na ko. moom Modou Lo jomam daal moo ko fi indi. na ba dugg jàmm gën. si tey dugg na waaw ba mu duggee jàmm waaw si tey ne ko la nga def laa def. tollul nit ñi. waaw ñëw ba lëmbale. waaw man it ñu ne woon ma du ma dinaa bëre ba te du ma egg si fii. waaw man it lëmb naa réew ba ñëw a bajara mayaw jambar production Mansour bu parcel waye jeex jam mi day mok fagal bu ngor sen combat bi yak na ni taw len ginaaw mi temps soufle wat na combat ba jeex jam fagal bu ngor jeex jam jeul nga avertissement temps ngi dem ko jëli na ko jeex jàmm jàppi na jàppi na fëgala waaye ndax loolu dina jeexal combat bi ndax foofu la ko eh caxabal dafa sori loolu daa sori jeex jàmm la nga bëgg def dafa sori jeex jàmm daa bëgg a bëree fëgala da koo ndengeeñ fëgalaa ngay dindi loxo góos jeex jàmm bañ na loola ñu nga jëlee mu ngay dóor waaw ay rokkos ca faar ya dóor jeex jàmm da koo ak loxo droite mu ko bëgg a wañ dafa diis lu dem waaye ba tey mu ngay mu ngay dox ca koom di ko contrôler daa bëgg a génn day génn day jël a da ngay jël avertissement fëgale fëgale loolu mën naa ñàkk ah oui fëgale loolu mën naa ñàkk dëgg la loolu mën naa ñàkk waaye jeex jàmm moom xale yi bëri fi di déggal lii waaye jeex jàmm mi bari na mbooloo di combat bii day amagut yoonu jeex une deux Cheikh Diam daw na jëli mu bañ door na ko dal na de door door laa ilaha illallah jeex jam door na fëgale de fëgale loolu nga jël tiis na de day fayu jeex jam da nga jël avertissement jël nañu jeex jam dañ lay daan dañ lay daan wala bañ na laa ilaha illallah eh xale yaa nga ca ñu ngay defante de loolu li wax rek ku ci mën a war na daan sa ay bërekat lañu moo tax mais nag jël nañ ku jël nga ku metti ah ku metti kay waaw ah, woy arbitre baa ngi wax ak Feugeuleu lu Feugeuleu def Feugeuleu mooy tula génnaat Feugeuleu mooy tula génn ah هاوي جوهو لافيرتيسما أربيت بيبانا جوهو لافيرتيسما لا إله إلا الله خلي نيوم نيمنا نيوم خير دي هي دور دلائجل دلائجل Feugeula day jël ah way Feugeula jël na ko de waaye jeex jàmm ah, lu xew ardo

jeex jàmm ñu koy faj laa ilaaha illallaah waat na combat bi Cheikh Jam dem na ardo ba ñëw fëgg laa ngi dox ci koom fëgg la da koo bëgg a song de baax na jàmm moytul daw na jël ko laa ilaha illallah oh di na ko mu ngi koy door tànk loolu mooy ay coup de dégagement moom la fëgale bu ngor door noonu déedéet da laa gis Siteu fëgg la wala jeex jàmm da laa gis Doğru. jàmm moytul loolu na laa ilaaha arbitre suuf la kombab? na combat ba mu jam. leewtoo waat jeex jàmm ak xale bi nga xam ne moom mooy bu Ngor bëre nañu mi-temps ñëwaat temps ba jeex mi-temps waat léegi prolongation des ku ne am nga benn avertissement combat bi bu jeexee ci nii dañuy match ku avertissement ci lamb ji jeexut ci yaay gañe ku daan na waxaale wuñu jam fëgale lewto dox sa kaw droite Cheikh Ndiamou demati na ca docteur ya waaw waay seddaay bi nga ciy naaj dara xewagul de ci combat bi xanaa avertissement combat bi na mat su ni lay xeeñ mat su ni lay xeeñ. waaw fi mu ne ñëpp am nañ xolu ci ñoom ñaar. waaw parce que tamit joxe nañ ñu nag. Ah, joxe nañ ñoom ñaar wax dëgg yàlla. Dangay jël affaire avertissement de dangay jël avertissement de dangay jël avertissement de dangay jël avertissement de danga koy jël de taf taf na la de da lay génne de da lay génne de. laa ilaaha illallah waa lii lan la combat ba niil na combat ba mat si niil jeex jàmm ak fëgal la bu ngor niil nañu salari jiin bismillahi ma dee ci door maam góor gi njaay sëtub maram jiin bàyyi maam maram njaay réew maa ngi may te ku réew mi soow booba dangaa siiw bàyyi my Maya, que